Jotali point net di jox ay xibaar ci tàng-tàng bi Jotali point net ay xibaar yu wóor ay journalistes yu mën seen liggéey Jotali point net vous êtes au cœur de l'info mën ngeen a abonné ci seen chaîne YouTube ngir ngeen di mën di déglu euh, seen revue de presse ak Abdou Khadre Seck dali jàmm ñoo ànd xëy yër yéen ñu xëyandoo yéen kaay gi di libération xëy duñu xibaar naa ñu ministre de l' intérieur Makhtar Cissé dalal na xel ci lu jëm ci élection présidentielle yi moom ministre de l' intérieur ci biir journal bi daan nay wax ne matériel électoral bi yépp yóbbu nañu ko ci biir réew mi nee na ci bitim réew ay détail moo ci des waaye nag lépp yàgg na organiser ay Cissé daat nay wax ne nañu moytu lépp loo xam ne jëm na ciy kàddu wala ay doxalin yoo xam ne mën naa yee fitna yéen kay dalee si ko xëy duñuy xibaar xibaar naan ñu en ba des sala ñi nga xam ne ñooy APR ak waa benn bokk yaakaar jamono ji li ñu bëgg mooy Karim Wade ñëw jàppale candidat Mohamed Boun Abdoulaye Dione yéen kaay gi dina témoin xëy dañu xibaar naa ñu diggante Macky Sall ak Amadou Ba xew ma lan moo xew ñoom ko bloqué mbir ma nag ma ñaaw bu dee nag ñaawul ba pare yéen kaay gi dina témoin xëy dañu ñu a a xibaar naa ñu ñi nga xam ne nag ñooy waa PDS ñoom jamono ji fa ñu ngànkoon ba léegi fa la

dañu leen a nommé ci conseil constitutionnel maanaam président bi mënu leen a dàq te seen mandat jeexul te nag Macky Sall bu doon sax dafa jaay doole forcé ba tas li nga xam ne mooy conseil constitutionnel dogal yi nga xam ne jot nañu koo jël maanaam dogal yooyee dafay wéy kenn mënu koo yàq yéen a kaay gii di laas xëy duñu xibaar naan ñu Amadou Ba ak ñaari atekat démb ñoo ngi doon wax naan dañu leen a convoqué waaye nag loolee dara du ci dëgg yéen a yi yéen a kaay gii di Vox Populi Mamadou Lamine li nga xam ne gerte am na ko ak xorom daan nay wax ne bu ngeen ma dénkee réew mi dinaa tabax ay usines yoo xam ne danañu mën a liggéey ci gerte gi ak ci xorom si ba gox bii di Kaolack mën a suqali ko yéen kay gi di enquête Idrissa Seck moom nee lu jëm ci wàllum secteur informel bi bu ñu ko dénkee réew mi dana ko lijjanti Aliou Ngouille Ndiaye daan nay wax ne bu ñu ko dénkee mi lépp lu jëm ci wàllum napp gi dina ko lijjanti na bu ñu ko dénkee réew mi lépp lu jëm ci wàllum ressources naturelles yi ko yoree ak ni ñu koy doxalee lépp dañu koy xoolaat ba mu yemb Boubacar Camara ci biir journal dénkee réew mi lu jëm ci wàllum njàng meeg njàngale mi dinaa ko lijjante maanaam boo amee juróom benn at ba ñaar fukki at ak juróom doo fay dara ci lu jëm ci wàllum njàng me gii di bés bi wax ne bu ngeen ma dénkee réew mi maanaam député yi dama koy wàññi sans député rek mooy am assemblée nationale yéen kaay gii di la témoin Déthié Fall ma nga woon ca Kër Madiabel nee na bu ñu ko dénkee réew mi dana lijjanti lu jëm ci loo xam ne maanaam moom lay dundee yéen kaay gii di Les Échos Amadou Ba démb ma ngi woon ci diwaanu Mbàkke daan nay wax ne bu ngeen ma dénkee réew mi jafe-jafe yi nga xam ne ak Mbàkke am nañu ko ci lu jëm ci wàllum ndoxu jafe-jafe yooyu dina jeex Amadou Ba nee bu ñu ko dénkee réew mi daara yi da koy moderniser Amadou Ba nee bu ñu ko dénkee mi lu jëm ci wàllum xëyum ndaw ñi dina ko lijjante yéen kaay gi nee na coalition Diomaye président démb toj nañu Pikine waaye toj nañu Mbàkke ndax mbooloo mu baree bari moo leen fa teerto yéen kaay gi di fa soppale Birame Souleye Diop daan nay wax ne coalition Diomaye président moo mën la ñu dëgmal yéen ca RTS ñu xañoon ko ko léegi delloo nañ ko ko yéenekaay gi di Réveil Quotidien Mary Teuw Niane nee na jamono ji li mu bëgg mooy saboter élection yi ndax Macky Sall xam na ne bu ñu demee ci élection yi coalition Diomaye président dafay gagné l'Express xëy duñu xibaar naan ñu coalition Diomaye président jamono ji ñoom ñoo téye internet bi ci lu jëm ci wàllum campagne bi yéenekaay gi di Les Échos Anta Babacar Ngom daan wax ne li mu def

gis seen bopp ci réew mi ndax Mame Boye Diao dafa jàpp ne réew mi mënuñu doxal maanaam sepp si jigéen ñi ma ngi woon ci Kër Massar yéene kaay gi de la sa xëy duñuy xibaar xibaar naan ñu am na réunion secrète boo xam ne famille libérale def nañu ko yéene kaay gi direct news xëy dañuy xibaar naan ñu libéraux yi jamono ji li ñu bëgg mooy tas conseil constitutionnel ngir nag ñu reprendre at li nga xam ne mooy élection yi yéen kaay gi di Dakar Times xëy duñu xibaar naan ñu Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye léegi tey ñu génn ci kaso bi journal bi sax li mu njortu mooy suba ji àllarba ji la Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye di génn ci kaso bi yéen kaay gi di la témoin xëy duñu xibaar naan ñu Bougane Gueye Dany ba léegi waxugul kan lay jàppale moom Bougane Gueye Dany kan ngay jàppale Jotali point moo leen jox ay xibaar ci tàng-tàng bi Jotali xibaar yu wóor ay journalistes yu mën seen liggéey Jotali point net vous êtes au cœur de abonné ci seen chaîne YouTube ngir ngeen di mën di déglu seen revue de presse ak Abdou Khadre Seck